Salut chers internautes euh, encore Général Galsen face à Momo Novita Momo Novita ñu ngi lay nuyu. salaamaaleykum <laughs> maa ngi leen di siyaar ah Général Galsen maa ngi leen di siyaar mbokk internet yi maa ngi leen di bëgg di leen siyaar c'est mm-hmm. moi Momo Novita l'ami des jeunes filles borom Dakar maa ko moom voilà. yaay Dakar. Mm-hmm. Momo ñeme barki maam Cheikh Rafa. tax nga ne yaa am Ndakaaru. dama am cër. am fi wàllu. ñëw xàll yoon bu garaaw boo xamante ne tey jii tax naa boo yu bëri ñime métier mi. Mhm. barki Serigne Saliou am nga sëñ Abdou Lahad dafa ne ni nit ki lépp looy def bañ ku la ca fekk jàppal lu bon la mais li may def man dafa nekk lu baax moo tax ñu ma ciy fekk c'est très important. ok mbay borom Dakar moom moo na nga hmm. def ba doon borom Dakar say say say début. donc euh, su ma nag moom vraiment. Euh, métti na métti na Galsen sama début métti na trop trop trop trop parce que boo xoolee man dama nekkoon diggante Petersen laa commencé dem fa doon jaay pat ak boros di jaay ay Kleenex mouchoir jógee foofu di ambulant dem doon dem di jënd ay body ci chinois yi di dem dugg Sandaga di ko fa jaay yenn saa yi ma dem xam nga jaay ay saak ambulant daal parcours na ambulant ambilaa na jaay naa lu nekk. kon mbapat nga daal léegi jaay naa waaw jaay naa sax CD pirate ah. ah bon waaw jaay naa sax CD pirate ambilaa naa mbapat bu baax a baax waaw jaay naa ay eh, affaires yu bëri. waaw jaay naa paak ak jaasi bu tabaski. yooyu ban ban ban année la woon exact. donc loolu soo xoolee ay 2008 ah Mhm. waaye soo xoolee deux mille neuf deux mille dix. deux mille neuf deux mille dix waaw yàggul ah. d' accord deux mille neuf deux nekk xale teel a sob teel a. am ambulant bi ñaata at la diire. ambulant bi soo xoolee mi ngi diire ay suma juumul trois ans quatre ans. trois ans quatre ans. donc en deux mille neuf deux mille quatorze. waaw yaa ngi si ambulant bi maa ngi woon si ambulant bi quoi. di di góorgóorlu di ñafe après nag. dem naa bi ma jógee foofu après dem naa ci foire yi nga gis ci dëkk yi yëpp amul mhm. benn raison boo xam ne ma dew ma fa quoi dem naa ci raison yëpp mhm. donc dem jaay fo foire foire di ànd ak samay gars yi di dem foire si bi xotaan laa mujjee dem oh, foire si bi xotaan donc wër naa ci foir dëkk yëpp Mbour Kees kawla fu dem naa pour jaay kon daal moom moo dund lu métti pour mhm. agsi fii tey ji lan moo waral la jékki-jékki rek créer une boutique tudd Momo Novita fan la jógee ok xam nga dañuy wax chaque ne borom taawul boo gis rek donc boo ubbee xolam boutique nga ci fay fekk mhm. ñun ñu ngi woon ci métier bi di ambulant di jaay mais li ñu bëgg mooy am boutique boo xamante ne dañuy fay fekk ba ñu mën a imposer suñu bopp ba ku nekk xam lii nelaw ci ñun ñu mën ko yee yaa ngi dégg mhm. tey jii nag dañ koy sante suñu borom parce que euh, nekk xale di góorgóorlu di ambulant kenn dimbaliwu la kenn teggu loxo loo am ngay denc ba yàlla dimbale nga taxawal benn affaire boo xamante ne ci dëkk bi man barki maam Cheikh Rafal eh, liggéey naa fi loo xamante ni képp koo xamante da ngay jaay yëre boo tuddee ñaar xam naa ne boo dee ñett di nga ma tudd de. ko quoi. loolu moom wax dëgg yàlla lu ma lu ma prouvé ba pare lu ma liggéey la. Mhm. lu ma liggéey ba pare nekkuma ci ay pexe nekk nekkuma ci kalaj kalaj waaw damay liggéey góorgóorlu di njaboot jaboot <laughs> nan mooy nekk ma si ay pexe nekk am ñu nekk ay pexe. waaw suñu pexe kere de si ay <laughs> normal liggéey. Mhm. Mhm. kon mën nañu wax yow nga am nii da nga ko ñafe da nga ko liggéey ba taxaw tey boutique bi sowrum bii mag bi nekk fii si Liberté Devant Liberté 6. Mhm. Campenal. waaw xam nga rek loo doonul taalibe moom loo doon sëriñam. te man li may def dama koo bëgg ba pare dama koo tarbiwu ba pare dama koo man dama ko man trop macha allah amul ku ma ciy fekk te du ma la faj lii may def nii macha allah dama ko man parce que man sama lu hmm. ma lu ma lu loo xamante ne man maa ko bëggal sama bopp. Hmm. xam nga d'abord balaa ngay def benn affaire nga koy bëgg suñu borom dimbali la yàlla xam na li ci xol yi de wallahi azim. Hmm. d'accord gis nañ ne que boutique bi jigéen yére jigéen kese ñoo fi nekk lu waral loolu ana góor ñi. waaw mais nit ku nekk da ngay fi nga mën a ah. amaana tey su ma jaay yére góor ñëpp dinañ jënd góor ñi sax dinañ jënd quoi comprendre nga. Mhm. mais ku nekk ak sa affaire fu mu nekk ah man samay mbir moom ji jigéen la ko suñ borom jaarale. lami de jeunes filles waaw xale jigéen ñi ñooy samay xarit waaw lu ma indi ñoo koy jënd. Mhm. dëgg dëgg nag. ñoom ñëpp moom wax dëgg yàlla lu ma indi dañ koy jënd. moom moo gis nañ culin gi. Mhm. xale yi ni ñuy solee xale suñu bëggee solo rafet fii la ñuy ñëw. parfois aussi dañuy solo sexy même parfois ngay dugal vidéo vraiment eh, mais moom lan lay jaay lan la lu waral loolu moom coow li waaw xam nga coow li moom foo jaar mu bëri parce que borom borom yëf yi rek dafa am coow mm-hmm. kon affaire yi foo jaar coow yu bëri solin gi nag moom sans dépend ci personne bi parce que nit ku nekk li nga sentir yow ak li nga bëgg a sol ak par ak fa ngay dem donc bu laaje nga sol lu sexe mm-hmm. donc mun nga sol lu sexe bu fekkee da ngay fa ngay dem dafa laaj tamit nga sol lu lu tenue boo xamante ne day nekk lu classe tamit da nga koy sol quoi mm-hmm. affaire yi moom gu yi bokkuñu ku ne ak sa gu rek ah mais ñun moom yàlla dogal nañu def nañ lu tuuba euh, noo mënti mel boo duggee di nga am sa yére ci kàttanu suñu borom. ñan nga solo ñoo xam ne siiw nañ siiw nañ ñoo xam ne siiw nañ ci milieu bi. ñoo xamante ne siiw nañ ci milieu bi donc noonu bëri nañ. Mhm. bëri nañ bëri nañ vraiment wax dëgg yàlla bëri nañ ah. Mhm. bëri nañ wax dëgg yàlla bëri nañ ah vraiment ñu may solal bëri nañ parce que ñooñu xamante nañ. <laughs> léegi xam nga seetlu nañ que euh, liggéey bi yombul en tant que góor. Mhm. parfois aussi jigéen dina ñëw fii. ñëw na day ndax day jënd ak ni muy demee. parfois ku ñëw jël yére pare jël ma bon ça dépend toi loolu mos na arrivé. Hmm. mais tentation yooyu moom wax dëgg yàlla. Mhm. dafay am lu bëri quoi te daf lay daf lay arrivé lu bëri mais nag ñun loolu dañ ko tarbiwu depuis ñu nekk Sandaga quoi. donc mhm. parfois xam nga rek maa ngi jéggalu donc nit dina ñëw tànn ay yére ba pare nar a xam nga yoruma soo bëggee nangam ak sangam ak yooyu. gànnaatal quoi waaw waaw soo bëggee ñu dem xam nga yaa ma gën a xam. Mhm. comprendre nga mais man moom ci suma àdduna loolu mosuma ko dund. parce que li may def dama ko fonk. waaw mm-hmm. ah, nit nag laa comme nit ñi. Mm-hmm. waaye man loolu mosuma ko dund sama at mosuma ko dundal kenn vraiment. mais suñ la defee loolu nan nan la lay def daal en tant que góor nit jigéen nañu maa ngi nii jox ma yereen rek xam nga def ma loolu neex. waaw mais xam nga xam nga dañuy man damay xam ni xam nga du ñëpp ñoo bokk yem quoi te am na mm-hmm. ñoo xamante ne xam nga xel matul donc man am na ñoo xamante ne sax bu tolloo foofu wallahi azim mun naa la may yëre barki alxuraanul karim mun naa la may bala nga dem te dara du xew. parce que damay xam ne yow sa xel la toll te man maa ngi feneen mhm. waaw kooku tamit dañuy xam ne moom. niveau alors waaw niveau am la quoi moom ak la muy dund tamit moom la concerné voilà. léegi ak musiciens yi si mel ne parce que dégg nañ Sidi waaye na la waale wala ñu njëkkee si Sidi sa relation ak Sidi. waaw sama relation euh, artiste yi moom. Mhm. donc sumay euh, xarit la soma waay la parce que man ak moom yàgg nañ donc euh, ba dara dul dara la man ak moom yàgg nañ trop quoi vraiment. Eh, mu nekk sama frère nekk sama xarit waaw nekk Baye Fall nag quoi nekk nit ku jàmbate jàmbaar moom foo hmm. xamante ni fu ma nekk ak fu ma nekkul moom daf ma fay way moom moom àdduna bépp xam nañ ko. est-ce que relation demee na noonu ba léegi relation maa ngi continué. waaye moo ngi continué. dégg nga laa mais ah xam nga xam nga affaire yi moom yaa ma gën a xam temps rek quoi. maanaam temps nag mooy yenn saa yi mun nga yegg ba si yàgg xam nga gars yi li nekk seen bopp seen xam ga rek day bëri. problème amu fi woon. problème mu lan. ñaar non mosuñu am problème ak Sidi. wala moo mm, bëri woon rek. coow li moo bëri mais mosuñu sama frère la sama xarit la xam nga yenn saa yi damay comprendre xam nga yenn saa yi ñi koy wër dañuy bëri bopp bi xam nga. Mm. yenn saa yi mun na ak tak rek xam nga xool benn nit rek mu jox ko sama image mu way tamit. léegi daal gis nañu ma moom moo waali la quoi moom moo waali dañuy wax. ah waali moom la. <laughs> Ah, gis nga. waaw waali moom sama sama xarit la. Mm-hmm. ah maa ngi koy jaale ah. Mm-hmm. maa ngi koy jaale maa ngi koy mm-hmm. jaale di ko wax Sidi Ndigaale quoi vraiment di ko dal metti na quoi. mais nag dañuy sant yàlla parce que xam naa ne man ak moom ñoo bokk lu ñu daal. Hmm. waaw mais dañuy sant yàlla quoi àdduna moom gën a bees la kese la mais gën a métti hmm. la moom du fi am hmm. quoi ñu ngi ñaan wajur yi yàlla yërëm leen xarit leen àjjana te yeexee ñu ko amiin ci barke Seydina Muhammad waaw mais Wally moom suma xarit la waaye la daal ah, léegi daal moo Wally ñu wax parce que man damay ñëw fi ay son waa rek laa fi dégg nga ñaa fi dégg ay son si non ñun dañuy teg ñëpp dañuy teg ñëpp dañuy teg ñëpp xam nga tamit ñun soo xoolee ñun ak gars yi dañoo xaw a bokk lu ñuy def mooy xam nga tey ku jënd yëre da ngay dem soirée non xam nga comme ñu dañoo xaw a bokk public quoi xam nga fu may waxee parfois ni jigéen di ñëw jënd yëre ne ay soirée Siri laa jëm ñi ñëw jënd yëre ne ah soirée Wally Seck laa xam nga ñun ñoo xaw a bokk lu ñuy def quoi comprendre nga ñoo xaw a bokk public ak yooyu noonu quoi waaw moo tax it foog ñuy tegante loxo dëgg sa relation yeneen artistes yi desi yeneen artistes tamit samay xarit la ci mm-hmm. mel ni ñoom Tarba ñoom El Hadj Kayta euh, donc Ibra Naajo moom suma xarit la moom fu ma nekk ak fu ma nekkul moom mu ngi may way mm-hmm. waaw Ibra Naajo waaw dafa xew nag waaw waaw dafa xew dafa xew <laughs> sama waay la Baye Fall la mais daal moom moo daal féetewaay mooy jigéen ñi mm-hmm. donc milieu ba nga si duggee ba léegi lan mi nga xam ne moo la si gën a neex ak li nga xam ne dund nga ko lu métti si sa novita bi ni baa li ma dund metti nag moom yaakaar naa ne ca ba may commencé la quoi. Mm-hmm. mais actuellement moom wax dëgg yàlla ñu ngi sant yàlla bu baax a baax sant alhamdulilah donc euh, li ma ci gën a dund nag moom muy mu neex loolu mooy mm-hmm. ngay jaay nit ñi di la wuyu si loolu yombul. Mm-hmm. su amee rek du sa njàmbaar yàlla dogal la kon kooku dañ koy sante suñu borom. parce que nit dina nekk ci euh, mbir dafay ati at du ci am dara nit ñëw def ci at yum ci deful du am ci dara kooku dogalu suñu borom la yàlla nag mooy jël lu ko neex def ko ci jaam bi. Momo dem nga ba nekk la number one actuellement nii. ah nekk gu ma number one loolu yi non non non number one nekk gu ma ko mais xam naa ne maa ngi góorgóorlu te maa ngi liggéey. concurrence moom xam nga yooyu mënoon ñàkk. concurrence mënul ñàkk mais nag du ma du ma leen xam quoi du ma leen dégg wala am go fashion ñoom seen wala go go suma xarit la ah. waaw go moom c'est suma suma xarit la suma xarit la mi ngi mi ngi ci yoonam di ko doxal man tamit maa ngi sama yoon di ko doxal bu baax a baax a baax baax go suma xarit la go bi passé rek ñu dajante Italie ah dajante go suma xarit la donc xam naa rek ñu terminé dañ lay béy yow en tant que jeune nga mm-hmm. réussir métti woon au début mm-hmm. te lan ngay conseillé booy yi nga xam ma ñi nga xamante ni man maa leen féetee mag ñu ne ci ginnaaw mooy ku ci nekk rek yaa xam ngay ambulant mm-hmm. ku ci nekk rek mooy ñi nga xamante ni man maa leen féetee mag ku ci nekk rek yaa xam ngay ambulant mm-hmm. wala ngay mécanicien wala ngay soudeur xam nga wala lépp loo mën def rek mm-hmm. mooy ñaan ngir yàlla war a suuli nga jàpp nga xam ne dara xëyit rek neex te dara xëyit rek sotti te wallahi nañ góorgóorlu lépp dina baax incha allah ba pare di joxaat beneen affaire ndaw ñi nañu fonk waajur yi c'est très important mhm. ah nañu fonk waajur yi nañu fonk waajur yi ab tegle nag moom bu guddee te daanu ba jiitoo jóg kon nañu fonk waajur yi merci mbokk yi seetaan Tic Galsen TV tey suñu gan moo nekkoon Momo Wita moom moo kontaan nañ trop merci jërëjëf merci beaucoup